En réalité, pour dire les choses telles qu'elles sont, ce pays a cessé d'être un pays démocratique depuis quelques années. Cette assemblée, on l'appelle Assemblée nationale, mais ce n'est plus l'institution euh, que traditionnellement on, attend du République. Nous sommes euh, plus de 30. Ils nous donnent un dixième du temps de parole. Si nous étions à la limite 300 députés, ils auraient pu dire, bon, ben, on vous donne un dixième, on prend le reste, 10 minutes. Ils prennent 110 minutes et ils nous donnent 12 minutes. C'est comme si nous étions le dixième de l'Assemblée alors que nous ne sommes pas le dixième de l'Assemblée. Ça, c'est un premier aspect, simplement. Le second aspect, qui est le plus important, c'est qu'ils pèsent 49% de l'électorat. C'est ça. C'est pas parce qu'ils ont 75% des députés qu'ils doivent s'estimer devoir faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus la majorité dans ce pays-là. Quand nous avons voté le 30 juillet 2017, ils ont pesé 49% selon leurs propres chiffres. Avec les fraudes, avec les fraudes. Alors que nous savons très bien ce que veulent dire ces chiffres-là. Donc, euh, mesdames et messieurs les journalistes, c'est vous qui portez euh, les points de vue, les positions des députés que nous sommes, et aussi qui portez leur point de vue, leur position, c'est votre fonction. Mais nous devons tous savoir que euh, ce pays a déraillé. Hein. Du point de vue de son système démocratique, il a déraillé. Aujourd'hui, la question fondamentale est de remettre ce pays sur les rails. Sinon, sinon, sinon, nous le regretterons tous. À commencer par ceux-là qui pensent que affaire politiciens là. ku yilif yilifaale ma am na ñoo xam ne ñu ngi toog ci keppaar yi naanukaayu attaay yi ne dañuy dox seeni soxla que li xew ni politiciens yi ñoo ko séq suñu moytuwul ñoom ci seen bopp seen soxla yooyee dootuñu am jotug man koo dox il faut ñu def attention ci liy xew euh, loolu laa bëggoon euh, tontu ci euh, mbir moom am nag ku ne waa est-ce que daal la politique de la chaise vide est ce que warul wona dem tok waxal sénégalais yi mais ñun ñu ngi wax ak sénégalais yi ñu ngi wax ak sénégalais yi kenn du nu mbugo tok juroom ñaari weer te waroon wa wu ne waroon nga ñew gën nga ñew ñaari yoon nga tok juroom ñaari yoon ke kenn gisul la parce que tay bëgg nga am na lo bëgg wax ak sénégalais yi bëgg nak ñu wol la assemblée nga wax ak sénégalais yi nun nu tok croiser les bras mel ni ñuy photo non loolu du ci am loolu du ci am duñu ko def parce que nit ki aussi man nga baña xam man limay may jar waye man dama wara xam limay may jar so xamut limay may jar man ma xam man limay may jar c'est-à-dire réew mi dafa tollu fo xamne ne quand même il faut nit ñi euh manam defar seetaat sen bopp kenn ku ne que bu amee ñoo xam ne jàpp nañ ne dañ koo war a foye ah réew mi nag taxaw ne non kenn duñu fooyee lii daal moo ci ne euh, loolu laa la mën a tontu sëñ bi nun noo ngi wax ba bëccëg ak askan wi saa su ne ñu ngi wax ak soxla soxlawunu dem ca baawu assemblée pour di wax ak réew mi c'est fii réew mi kenn mënatu fee làqatu di def lu la neex xanaa kay nga ne maa yor doole ji doole nag moom kenn ko yor de tabaraka waaw tabaraka wa taala moo yor doole ji ah waaye nag mu mu compal la ci pour utiliser le terme de Mansour si Djamil mu compal la ci nga defe ne yaa ci ne ah keroog ba ñu ne Macky Sall yàllaa ko fi teg ma ne na yàlla ko fi tegoon kay ba mu beewee yàlla yónni Moussa ak Haaruna ñu màbbal na ku fi teg sa bopp na ay Muusa ki Haaruna dinañu jóg màbbal la looloo fi ne leneen nekku fi